asalaamaaleykum ami internet de Dakar Buzz nuyu nañ leen bu baax a baax tey nag ni ngeen ko gisee rek dañoo wàcc fii ci Thiaroye Minam ci commune Djiddah Thiaroye Kaw ñëw nag ci famille Seck bi nga xamante ni eh, se dañoo am seen doom boo xamante ni dafa bokk ci ñiy jot a ñàkk seen bakkan ci plage bi eh, loolee waral nag ñu ñëw doxantu fi ginnaaw bi ñu nee xale yi nag am na ñu ci feeñ mu mel ni ñoom information bi nga xamante ni moom lañ leen jox rek information yu fos la ndaxte. ñu sukkandikoo ci ñoom rek hôpital yi ñu wax ni foofu la seenu néew nekk fenn fu ci nekk dem nañ fa mais gisuñu leen eh, dañ ci dalal rek suñu papa ji mu indi ci ay leeral salaamaaleykum papa waaleykum salaam. tur bi nan la. Jibi Seck laa tudd. Eh, papa Jibi Seck yow lan nga ci xale bi nga xamante ni moo ñàkk ba. maamam laa parce que man ak maamam bu góor bi ko jur ñoo boo ko benn baay. Euh, mu mel ni dañu ni woon xale bi moom euh, daal na feeñ mën nga ñu wax euh, fàttali turu xale bi ak ndax feeñ naam déet. xale bi Saliou Seck la tudd feeñul parce que dañu waxoon démb comme quoi que moom mi ngi feeñ na ngi hôpital principal ñu dem foofu fekkuñu ñu fa koor bi ñu ne mi ngi CTO ñu dem CTO ñu fa koor bi booba léegi gisuñu benn trace ci moom dem ba tey ñu ngi si géej gi di xool mais vraiment amuñu benn trace ci moom mënuñu wax ni rien n'est sûr que aussi moom il est vivant ou bien il n'est pas vivant mënuñ ñu wax ne aussi mu ngi ci géej gi wala nekkul ci géej gi ànd naag ay moroomam dem nañu géej bi muy génn dafa waxoon day dem football yi loolu la tàggoo bi ñu demee ba ay 19 heures yooyu gisuñu ko bi ñuy ko seetee gisuñu ko la ñu dem ci ay moromam yi mu àndaloo ñu ni ñoom géej lañ demoon mais am na ci koo xam ni nee na moom gis na ko muy lab di dem nii mu yoroon yére bi après ñun am na beneen corps bu génn muy mu bàyyi yére bi foofu dem di ko seeti mu ñëw fekk ñu jël yére yi waaw loolu daal lañu ñu mën a wóoru ni xale bi mi ngi si géej gi mais à part ça amuñu lenn lu ñu mën a jàpp ni mën na xale bi mi ngi si géej gu la ou pas quoi vraiment. waaye daal am na benn moromam boo xamante ni nee na gis na ko muy suux. muy surux waaw am na benn moromam boo xam ne nee na gis na ko carrément muy surux quoi waaw waaw. moromam boobu si ñaataat la même ñoo moom ñoo tolloo même à ay voilà. léegi moom ba mu ko gisee muy suux laaj ngeen ko ndax dafa daw wuti ji wàllu wala daf ko doon jéem a dem. nee na wuti na wàll am ay ay mag ñu ne foofu dugg nañu mais am na ñu ñu génne mais moom bokku si waaw moom moom bokku si nee na boobu la ñibbi si nag ñoom. ah kon de jamono ji li ñu gën a mën a njort mooy que ni dafa lab. waaw waaw loolu daal moom mais nag dañuy nekk en positif quoi parce que. li nga xam ni fekkewuloo ko quoi et waxu xale la moo mën nañ ci basé comme sa mais tamit ba pas wóorul daal xam nga la voilà voilà man. ndax mag yooyu nga xamante ni nee na am na ñu fa nekkoon est-ce que dem ngeen gisanteeg mag yooyu laaj leen. non non demuñu bu ñu demee fekkuñu leen fa quoi fekkuñu leen fa mag ñi ñoom fekkuñu leen fa quoi. léegi xale bi moom xàmmeewul mag ñi. xale bi ñoo xàmmewul xam nga géej day bari ay nit day bari ay nit quoi xale bi xàmmewul mag ñooñu quoi. xam léegi moom xale bi ani papam ak yaayam. yaayam mi ngi itali papaam mu ngi itali yaayam Cheikh seek lu tudd papam mu ngi tudd Atia An yaayam mi ngi euh, yaayam mi ngi tudd Atia An. Euh, ndax xale bi daan na faral di génn di dem. te te du ñëw. non bu doon génn parce que maam bu jigéen mi ngi dëkk fii tout près de nous là foofu rek lay dem di baagante di ñëw xam na mais nag boo reppee il faut xam nga la nit moom bu waree dem il faut suñu borom. jaarale foo xamante ni bi mu noonu lay jaare pour mu dem quoi bi muy dem fii la fii laa toog géej tàggoowul sax géej dafa wax day dem football yi ak ay moromam ñaan benn ndijaayam cent franc mu may ko cent franc voilà mu dem boobu lañ ko mujj a gis quoi waaw. léegi ndax euh, moom xale bi nekkoon na ku bëri yëngu-yëngu am. non waaye il est intelligent parce que boo gisee man awma ma duut ci mi ngi ci géej gi parce que bu fekkonte ni bii moom il est vivant vraiment. parce que jàng na xam xam nga am na benn niveau ci ci njàngam man na bind numéro téléphone xam ne numéro téléphone am xam ne numéro téléphone waa kër gi man na tiit dem mais bu demee ba retouré wu xamala nga dina mën a def contact pour revenir à la maison mais booba léegi gisuñu benn aucune trace xam nga la kon il man il est que enfant il n'est pas vivant vraiment mais ndax euh, sapeur mi ngi def liggéeyam. sapeur dani bu ñu gisee dara ñu woo leen démb dañu gis foofu benn affaire benn défunt bu dee quoi ñu woo leen ñu ñëw génn ko demaat booy gisaat yebbe xaw ma am na lu ñu gisaat foofu woowaat leen bi ñëwee dañ ni bu ngeen ñuy woo na ngeen ñu woo ci ay condition yoo xamante ni daal lu wóor la quoi xam nga bu ngeen ñu ji woo ñëw xam nga la et ba booy du xuloo ñoom xam nga la voilà sapeur ñoom seen liggéey moom parce que géej gi. état war na ci jël ay responsabilité parce que chaque année day lekk ay xale yu bari te duñ leen amul amul contrôle xam la boo demee fi ne nii actuellement mu ngi fees ay xale yoo xam ni sept ans huit ans xam nga ca xale yi bu ñuy rëcc seen parent yi duñ leen lëj duñ leen gis kon war nañu am lu ñu fa teg ay mag ñoo xam ni wala sapeur soit police ba nga xam ne bu xale yi xale yi nga xam ne yenn âge yi la ñu yor bu ñëwee ñu dàq leen mais dañ leen di bàyyi ñu fees teel ci géej gi xam la état war na ci jël ay mesures quoi parce que géej gi chaque année day coût bi day am chaque année coût bi nii chaque année day am nga xam ni day xëy rek lekk sept personnes wala neuf person par jour c'est trop vraiment c'est trop quoi. mais daal amul ñenn ñoo xamante ne rek daal dinañ def seen métier maanaam bu ci biir euh, seet xale yi. amul foofu ay ah, ñuy ñuy ñuy non non non non non ñoo ñoo xam ne xam la dañuy taxawaalu foofu di di di di génn xale yi. mais dugguñu ci biir géej. ñooñu amu fa loolu amu fa. peut-être ñu tombee ak mag mun fa nekk mu mën a mu mën ndox xam nga la mu xam ni ils sont en danger mu dugg pour jéem leen a sauver quoi mais sinon koo xam ni dañ leen ñoo xam ne dañ leen di envoyé foofu spécialement pour ñuy sauver ni ñi kooku ya ne pas. Euh, mais si jamono bi nga xamante ne lab nañ laa wax ndax euh, euh, joxe nañu benn benn équipe boo xamante ni dinañ dugg dugg nañ ci géej gi wër. non non amul équipe. ñoom daal dañuy ne rek bu ngeen gisee dara ngeen. waaw loolu la ñu wax. sapeur loolu waaw. mën nga ñu fàttali turu xale bi ak at yi. xale bi 11 ans la war a am saaliwu Seck. mu mel ni sax comme dañ ni woon ñii dañ ni ñaar ñoo lapp ñii ñeent. kenn xamul parce que man am na benn sapeur pompier bu ma wax nii kenn mënu laa wax combien des enfants ils sont dans l'eau kenn munu leen a kenn xamul nombre bi parce que géej bi dafa dóor rek yóbbu xam nga xamuñu ñaata la parce que tey ce matin même am na benn corps bu génn am la. voilà hier il y a deux corps qui étaient sortis kon kenn munul wax ñaata personne ils sont dans l'eau xamuñu ko xam nga man benn sapeur pompier moo ma ko wax quoi kenn xamul ñaata la ñu ah kenn xamul ñaata la ñu vraiment. léegi yéen yan yan hôpital ak yan ngeen dem. démb dem nañu fa euh, Dantec xam nga Fann moom dafa occupé quoi duñ fa yóbbu ñooñu quoi dem CTO dem camp sapeur pompier bi ne fii mais gisuñu dara. léegi eh, jamono ji ngeen toll ni lan ngeen di sàkku. lu ñuy sàkku a ah, yéen ni ngeen def nii baax na parce que vraiment ñëw laaj ñu suñu envie ñu wax leen suñu envie bon c'est bon quoi xam nga la parce que ñu démb même wax naa ko booy ma leen comme on a fait tous les moyens ce ne pas marché maintenant on va on va essayer de passer par les médias quoi mais am nañu seen benn oncle bu nekk Dakar di kay mbay ñu envoyé ko photo booy bi man xaw ma il a fait ou bien il n'est pas fait mais démb jox nañ ko foto booy bi xam nga voilà pour moom mu mu mu mu jaaree ko mu passer par la média parce que mbir la moo xam ni comme on a gisuñu ko xam nga la il faut def noonu quoi pour làmbatu daal ba xam lan la yàlla di def daal. dëgg la ñu lay masawu di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nit. salaamaaleykum yaay. waaleykum salaam nee na tuuti. tur bi nan la. Ndaak Seck. Euh, tata Ndaak lan nga ci xale bi nga xamante ni moo ñàkk ba. xanaa mag papaam ñoo bokk ndey ak baay muy sama rakk papaam bokk ndey ak baay sama rakk man maa ngi sëy buun waaye sama kër yaay la ne sama rakk yi ma bokk ndey ak baay mu topp ci man moo ko yore waaw yaayam di tukkee ak papaam yaayam daaw rek la dem waaye koo bàyyi ak moom waaw tey daal man ma sa am ci moom. Hmm. mu mel ni sax dañu doon wax ni feeñ na ndeke mujjul feeñ ak euh, yow kañ nga mujjee gis xale bi. man xam nga sama papa dafa gaañu bi nu waree dimanche dimanche la nu wari altinet mardi sama baat sama papa gaañu waaye man semaine boobu yëpp ngi fi ba àjjuma àjjuma bu maa ñëwee ci laa ñibbi li may dem moo ma jëndal bagage yi ma yóbbu yëpp même kayit ma doon jëndal sama xar yi yëpp moo ma ko jëndal waaw ci laa ñibbee nag ba ma demee ba tey damaa si boobu. léegi nag ba ki démb alxames bi affaire bi amee man dañ ma ko doon nëbbu sax depuis ah, maa ngi ko yëg alxemes ay midi laa ko yëg ko nekk ne moom rab na depuis alxames si ngoon waaw. àjjuma laa ko ay midi ndax li ma doon feebar tax ñu ma koy nëbbu muy sama doom nag di sama xarit lool nag ku bëgg bàjjen nag waaw. nag moom doy na waaw lool lool ndax bàjjenam nee na fi la añee te mu fi añee it ngi tëdd ci lalam. ba 5 yor yor uh, kii yam tabletam te di nekk bàjjenam waaw mu yoree tabletam nag ba 5 heures ci ma ne bàjjen may ma ñaar fukk dañuy fubal doom bu góor bi yëkkati ñaar fukk may ma andi feet kaat xawe waaw bi mu leen joxee ñaar fukk yi nag nee na ñu ngi ci mbedd mi ba 6 heures 7 heures xam naa ci la dem waaw bi demee nag ci la ñu am niveau mu jaaxal ñu loolu nag muy tiis bu metti géej gi ak fii dafa sori. na moom sori na sori na ndax ñu jaay mi ñoom ñëpp bi ñuy dem dañuy yóbbu anse war ñu dugg sori na moom waaw te bi ñuy dem nee na sept heures presque jot na. moom faral di dem géej. déedéet benn yoon ma dem géej te bi muy dem géej ci juróomi la toll te bokk ci rakku papaam dóoree ba mu sonn ci ba mujjee dem géej géej moom mosu koo fayee ku ma ma waxee sax mu ne sama bàjjen damay dóor duma dem géej waaw waaye nag xëy na. booba dee ñëw na rek dee lay jëli waaw ni keroog añ bi sax bañ na ba dañ ko jëndaa dañ ko jëndaa attaay sax ne ko toogal mu xim attaay ji waaye daal ñëw jox xale yi attaay ji na leen am leen yaayam am doom foofu daaw ci koor gi rek la am doom ñu daal ne ko am seetaane vidéo bi waaye da ko seet seetu yàkkamti rek daal di dem waaw mooy affaire bu yéeme nag vraiment waaw. moom daal da gis ni dafa yàkkamti woon pour dem rek. waaw ci ni man fekkuma fi. waaye xam nga xale moom bu fekkee ni ñoom ñoom ñu ngi ko cité kii teg kii teg ñuy jënd say morom di la xaar xam nga doo mën a xaar yee say morom ak xaar doo mën a xaar da ngay daal di ànd activité rek dem ànd ak ñoom waaw activité googu nag ñun ñu ngi toog di ko xaar léegi nag bi ñu toogee ba ay 7 heures 6 heures la ko gisu ko dem seet ko kër maam mu ne ko nekku fi rakkam bi topp ci moom ne leen saa doo doon na fu bari ma topp ko di jooy mu ne mag doo ànd man ci la ñëw seet seet seet gisuñu ko ba géej gi ba timis bëgg a jot gisuñu géej jot gisuñu ci la nijaay mi taabee seen ancien dem géej noonu noonu ni ma àndaloon ñëw waaw niveau boobu rek lañ ci am vraiment waaw muy tiis bu metti nag ñuy ñaan yàlla nag ci bàkke turandoo sëñ Fall mi ñu ko tuddee yàlla na ko yàlla leer euh, euh, nit ak ñam fa nekk ñëpp waaw ndax ndox moom ñetti fan rek boo ko ci nekkee ëpp na waaw ñuy ñaan yàlla yàlla nit ko nag ci dara jëy sëñ Fall waaw merci beaucoup salaamaaleykum maam. salaam. doom. maam lan nga ci sëñ Saliou. xanaa bokk ak baayam ndey baay jaaxle nag rek waaye nag dañuy dellu ci sunu ya sunu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi rek delloo sunu bopp ci sunu borom xam ne mënu ko joxoon. merewuñu nag yaayam ah jéppuñu ko ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla mi mën a feeñal yàlla na ko feeñal waaw ñoo baayam ñoo bokk ndey baay baayam xëy faale nañu. respecté nañu xam na ñun ñooy kan waaw teg nañu it place waaw ñu ñaanti yàlla nag sëñ Saliou mii yal ko suñu boroom ñiit waaw la fi jóge dem ànd ak ay moromam bu yaa yàlla mi dogal morom yi ñëw moom ñëwul waaw ñaan ci yàlla nag di lu ci yonent bu bi yal ko yàlla suñu borom ngiit waaw ko turandoom wàllu liggéeyu ndey mu barke baayam yal na ko nangu yàlla ko feeñal ci barke Seydina Mohamed di xamal yaayam nag ni ko mere wuñ ko benn yoon waaw sama rakk ji yal na ko yàlla may xolu muñ yal na ko yàlla may xolu muñ jërëjëf doom lii rek laa am lu ma doon wax waaw di sant yàlla rek nag yéen yal na leen yàlla jàppale dimbali leen waaw. alhamdulilah. tur bi lan nga ci sëñ Saliou. sama rakk la ndax sama doom jaay la. papaam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay sama yaay mooy seen xalifa kër gi Euh, na mën nga dikkaat ci mbir mi ni mu demee. waaw sëñ Saliou de alxamis lañ toog fii ci fii la añee nag ñëw toog wax sama rakk bi Mouhamed ak sëñ Mbacke comme ñoom buy fubbali ñoom lay ñaan li muy tegee mu ne leen may leen moom li ma tegee ndax dañuy fubbali fii ci ginnaaw ci tool bi fii si ginnaaw rek terrain bi yaa koy may mu daal dem mais ñun danoo toog ba ay timis daanu ko fekk ci àll bi moom wax dëgg yàlla fu waxtu timis jotee rek mi ngi ci biir kër gi wala mu nekk kër maamam fii maamam bu jur yaayam yàlla def mu ñibbi si ñëwul ñu toog ba heure boobu ñëwul gisuñu ko ñu toog ba 10 heures ñu ci liggéey ba pare ay 10 heures gisuñu ko nekk xale yi mu àndal moom ñëw nañ ba ba kenn ku ne fatu quoi seen kër léegi si leen laajte nag am sama benn xarit même sama raq yi sax ñoom demoon nañ géej boobu ba am nañu fa njëkk a ñoom falal leen fekk. mais boobu xëy na boobu mi ngi fa mais ñoom foogee fooguñu ko fa parce que leen foofu ñoom ñi ñibbi si ah, yàlla def euh, ba ñu ñëwee ñu toog tuuti ñu woo ko ne ko booy Saliou gisoon naa ko géej ñu dem fexe ba xam booy yi mu àndaloon comme dunoo tiit làqatu ñu daal leen woo ñu ñëw expliqué ne ñoom ñu woon si mi woon géej léegi ñu ne ko Fall yu ne dafa des seen si ndox ma loolu lañ ci am quoi mais comme déggoon nañ ñu ne am na ñoo xam ne. bañ leen sëfee rek dañoo génn rek daw dañoo ginoo am na koo xam dafa génn si ndox mi rek daw dem waaw léegi ñun peut-être xamuñu loo xam daa bokk ci kooku daw dem xaw ma tamit dafa des si ndox mi mais depuis alxamis ba léegi daal ñoom ñu ngi koy wër. comme bokk ci ndox mi daw kooku dafa dafa dafa doon lab dafa doon waajee lab ñu sauvé ko génnee ko ci géej gi rek mu daw. waaw kooku dafa lab ñoom danoo laboon léegi sapeurs yi lan woo ñu expliqué ñu loolu ne génn nañ deux personnes. trois personnes mais kenn ki ba ñu génn ba ñu ko sauvé rek mu daw dafa ju génn rek daw mais ñaar ñi moom du noo dee si récent mais kenn ki moom dafa génn rek daw mais xamuñu ba xam moom la loolu du moom waaw parce que tamit si njëkk ndox mi ñëpp dal moom ci la bokk waaw. léegi nombre bi nga xamante ni ñoom ñoo desoon ci géej wax nañ leen. non waxuñu ko parce que tamit ñoom sax dañuy dañuy tàttane rek mais xamuñu ñaataa des si géej gi. parce que man démb am na waa joo xam ne nekk na moom ci géej gi barki démb ba ma ak ñoom fala ni yendu ak moom mais après moom ba mu ba ñu ñëwee toog oh, xool nañ ko waxtaan ak moom ba mu jël numéro ma jël sama numéro mu jël numéro ndeysaan ñuy waxtaan mais ñoom démb la seen koor feeñ ndax ñun démb ñu géej ñu ngi fa ba 7 heures fa laa julee timis man fa laa julee timis ñu ñëw ñoom ñu bàyyi leen fa ba 20 heures après ba leen fa bàyyi ba 20 heures ñoom danoo ñibbi danoo dem rek après ñu woo leen ne leen am na ku feeñ Malika ñi dem mu nekk seen seen néew. léegi man bu ma xëyee suba laa ko woo mu ne ñoom seen bos feeñ na parce que heure boobu la feeñ mooy ñi ne ñi doon wax suba. foo ko feeñ moom ay atam si ñaata la euh, ay ñoom ay as parce que kooku ndeysaan moom it si géej gi rek laa ko xamee ñu numéro pour mango ku njëkk a sa kooru morom rek ndeysaan woo la ñun tamit démb ba demee rek ba xëyee fajar gi ñu jullee ba pare ñuy géej ba demee ay booru 9h 9 yooyu am na ku teer suñu kanam moom am na ko xam moom dafa ñu doon dem ba jàdd ba windeelu danoo tourné rek mu teer ay xale yu góor yi nekkoon foofu ak benn maire toogoon ak seen mag la xawma seen yaay ñoo doon eh yaay ki kii dafa mel ni xalal nit la dem xëcc ko mu génn tegee ko nële après ñun si leen ñëwee gis ko ma muri ko xool mais du moom kooku après sàppoor lan woo ñu jël si ko yéen. kooku tamit xale la. xale la moom xale la mel ni âge bi ay 13 ans 12 ans ñoom ñëpp ay xale la waaw. lay masaw. jërëjëf ñu leen di ñu leen di kontaan si yéen tamit wax dëgg yàlla parce que tamit liggéey bu am solo ngeen def nii parce que kontaan nañ si trop te it lii jafe na trop pour ñu am ko mais tamit euh, boo xoolee ñu doon ut sax ku ñu dugalal photo bi xam nga diñ ko wana pour ñu mun koo gis bu ko keneen gisee bu fekkee dafa bokkoon si kooku daw ñu yàlla mun ñu see dumbali mu doon moom ku ko gis mun ñu ko indil kon bu ñu amee occasion ngeen ñëw fi waxtaan ak ñun tamit ah dañ leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal seen liggéey bi ngeen tàmm di ko ut yàlla defal leen si ngeen am ci mbégte am ci sutura am ci li ngeen bëgg yëpp yàlla defaral leen ko daal jërëjëf kontaan nañ trop macha